ndax ñun bëgg nañ saa yu ñu yëkkati suñu kàddu ci lu jëm ci yoonu murit rekk nañu yëkkati suñu kàddu mooy luy soññu taalibe yi walla ku dal ci kaw yoon wi <clears throat> ñu waxe suñu yëg-yëg ci yow waaye bu dee lu jëm ci suñu mbirum bopp danoo ñaanoon yàlla lu ñu waay wax baax na ndax ñun ñaanuñu yàlla bindal kenn bàkkaar ngir suñu jëm waaye nag kàddu yi may bëgg a yëkkati day kàddu yoo xam ne mën naa jaxase am réew mën a jaxase ay bokk mën a jaxase aw askan te ki ko wax di Cheikh Gadiaga di yëngu ci benn site bu ñuy wax senegal Info donte sax sit boobu miinuma ko ci moom maa ngi ko miinoon ci wetu Cheikh Amar mu wax ñaari kàddu yoo xam ne naka jëkk ay waxam la ndax mas naa njëkk yëkkati ay kàddu ci sama jëmm tuumaal ma ko waaye tuuma jooju dama ko bàyyi woon ak yàlla tuuma jiit it dindiwuma tuuma ji waaye damay leeral ndax nit bu dee wax war nay seet na dara tëdd ci bàmmeel war na yëgit ne am na ñaari malaayka yu ko tiim di ko bindal war nay xamit ne li muy yëkkati yàlla nga koy dégg mu wax ne am na soxna su muy attaqué soxna soosu muy attaqué man na maa waat ci yàlla na xamalu ko benn bu ñaaw comme moom tàmm na santaas nit tàmm na it li muy am ci wax yu ñaaw la koy amee mu xëy na mu yi tax moo tax mu yëkkati kàddoom waaye maa koy xamal ne ko man bu ma sañoon buy wax na ma ci génne ndax li ma ci xam ci moom bari na lool xame naa ko ci Mbàkke Bawol gi mu dëkk di turandoo sëñ Cheikh Bombali xam naa ko it ci yeneeni mbir yu bari waaye man weer nit du sama àdduna yàq derum nit du sama àdduna man bu ma sañoon saa yu may xëy ci defar laay xëy waaye loolu mu wax ne waxtaan naa man ci mbirum soxna soosu muy tudd maa ngi waatal yàlla di waatal yonent bi di waat ko ci baaxul Cheikhul Khadim ni wax maa ngi moom waxuñu benn baat benn baat Cheikh Amar euh, Cheikh Gadiaga amut lenn lu may wax ak moom ci mbirum àdduna du dara kon maa koy maa ngi koy laabiré na ko na xam ne ñi muy tuumaal bokkuma ci man de su ma moytandiku maa ngi waat ci sëriñ Tuubaa ne eh, dana xam ne duma ma moroom bëgg naa suy wax na ma ci génne ba mu set wicc beneen bi ci toppit mi ngi yàqal seex Amar Cheikh Amar ba ma koy xam moom xamu ko léppam li sëñ Tuubaa cosaanam di maam Cheikh Anta sëñ Mourou Mamoun muy nit koo xam ne def lu baax képp a kenn xamalu ko ci leneen lu weesu yitteem yépp mooy sëñ waaye su fekkee ne yow yaa ngi jege nit te yow yow mi ko jege wóor na la ay bokkam sax buñ sañoon doo ko jege sëriñam bi mu yaakaar bu sañoon du dootoo ko jege même nit yi état sax buñ sañoon dootoo ko jege ndax ñëpp la xam sëriñ bu dee mën na maa waat ci yàlla ne bu doon ci sëriñ bi mu yaakaar ne bu sañoon dootoo wax ak te it lii ma la wax boo ko weddee nag ñëwal ñëwal Touba am naa ci ay preuve te it soo ma moytandikuwul nag euh, dana dana leer am na lu may junj loo xam ne soo ma moytandikuwul dana leer bokki see xam ne rek xam nañ ne amuloo ko benn njëriñ da nga koy yàqal ndax yow koo àndal ci santaas rek ngay àndeek moom waaye naafeq ak ñeme yàlla ji tax nga naan li muy wax waxtaan naa ci ak Fallou Gala Sylla waaye seex yaa ñeme yàlla yow foo waxee man yow benn yoon nga ma woo mooy bi ñu defee appelu xel ko nga ne ma Cheikh waxtaan nag man ci appel bi neen nga jox ma ci Cheikh Amar waxut ak yow Cheikh man El Hadj Tall la ma booleel bi ñu defee appel ba pare ne ma soo noppee joxal ma ko El Hadj Tall lu ma ciy def defit moom laa ciy waxal nga ñeme yàlla di ma woo xanaa yëgoon ne waxoon na ma ak Cheikh ba pare Cheikh ba mu koy xam xamoo ko su may ko moom doo ko yëg waaye dama bëgg nga moytu moytundi ko sa ñeme yàlla kii beneen bi man lan laa doon ci Touba man du ma kenn man Fallou Galasse Syll di taalibe gën a bon ci taalibe yi nekk Touba nga naan waxtaan na ma ak moom danaa wax ak sëñ Muntaxa pour ñu génne ko Touba xanaa bu ñuy génnee Touba yow lañ ko war a génne yow mi doonut kenn ciy wër famille bi di leen jaxase Cheikh Gadiaga seetal yàlla ci li ngay def te xam ne danga mas a faatu Cheikh Gadiaga jéemal la liggéey wut sa alali bopp te xam ne ñii ngay santaas ci aw ñaq képp lañ jaar ba am nañ am gone nga weesoogoo fenn tolloogoo fenn te ngaa jéem a defi xet ma te bàyyi naafeq bàyyi tappale bàyyi njuuj njaaj bàyyi seytaane bàyyi jaxase xamal na lii ku koy def mënoo fexe ba sa sa mujj baax maa ngi lay avertir nag benn yoon su dee si waatee àdduna bépp gën a yëg ne dal nga sama kaw wasalaamaaleykum wa